dal leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV Sénégal ki ñu dippee Pape Moussa saw ginnaaw ba kii di président Ousmane Sonko génnee daal di amal la discours am bi kuréelu journaliste bi ñu dippee Synpics dañoo génnoon daal di ŋàññi kookee waaye si li ni mel kii di Pape Moussa saw daal dinay tontu. waa léegi yow fàttali la say règle attaqué la. fàttali la da nga gëm ne fàttali la les règles qui régissent profession de journaliste est-ce que nous attaque là certainement pas. alors donc nous où est le problème Voilà, journaliste lui-même immunité de def te quoi. le premier ministre donc ils veulent dire que nous, une autorisation d'invectiver Nous euh, distributeur automatique de mensonges ah nañ ci dem bu waxuma premier ministre waxuma président euh, de la république bépp sénégalais qui se sent diffamé par un journaliste am nga sañ-sañ yóbbu moo yenn débat yi mosuma koo gëm sama aduna ay dépénalisation des délits de presse c'est quoi cette réalité scandaleuse oui loolu parce que délit de mécanique bu amé ñu réprimer ko délit de médecine bu amé ñu réprimer ko délit de menuisier bu amé ñu réprimer ko mais presse bi mom bu défé dara ñu na ko loolu la ñom ñu ils sont au-dessus de la loi certainement pas alors pourquoi légui képp ku def infraction dans l'exercice de ta fonction nous donne là, mais journaliste bu ko pas pas ñu lañ ko alors que la, constitution est là au-dessus de nous tous à son article premier mu ne Sénégal yëpp a devant la loi. d'accord pourquoi journaliste nous moom mu nous ne dafa une autorisation de faire des infractions sans pour autant que nous pénaliser

muy journaliste. Hmm. muy mécanicien muy menuisier ku ci def lu jalgati code pénal yon dafa war dal sa kaw C'est ça la réalité sinon nañ xoti code pénal bi. justement tëj prison yi tëj yëpp génn. code pénal bobu noonu tey jii est ce que journaliste amna ci part bo xamanteni ou bien amna ci kiray bo xamanteni dina ko différencier avec le citoyen non pas du tout amul. amul donc tay lan mo waral yenn journalistes yi ils te disent haut et fort que place journaliste. nekk waaw léegi ñooñu la ko waxate nee leen ndax place pêcheur moo nekk kaso wala place chasseur moo nekk kaso wala pla pla place euh, marchand ambulant kan la place am nekk kaso. balaa baa ne ñu takk seen i rajo naan place journaliste du kaso mel ni daa am sénégalais yoo xamante ne ñoom la seen place nekk kaso place kenn du kaso mais képp ku fi jalgati loo xamante ne yoon da koy tere yoon day dal sa kaw lu ko mooy nañ tijji prison yi ñëpp génn kon. nañ bàyyi euh, c'est-à-dire am na yoo xamante ne di jéem a nax sa bopp la léegi nag am na amoon na fi ah journaliste da ngay ñëw takk say rajo wax wax wax wax après ñu woola nga euh, joxal la bokkal la compal la nga demaat toog di xalam loolu fi amoon woon ni na nañ ko xam woon ni na nee naa la le premier ministre Ousmane Sonko le président Diomaye ne doivent leur salut qu'au peuple sénégalais amul kenn ku mu redevable ku dul askan bi du benn presse du benn journaliste kenn koo xamante ne tey jii ni mën na ne les dënam ne mata tax nga am c'est le peuple sénégalais mom mo juk comme un seul homme porter le président Diomaye à la magistrature suprême dès le premier tour avec 54 fi la xew mm-hmm. kan kan mo wara a mën taxaw revendiquer paternité wu euh victoire kenn ku dul askan wi donc kon amul kenn ku dul askan wi kuy jóg wara a tek la pression sur qui que ce soit ci régime bi ni euh, nee la pour la première fois dano, am régime bo xamantene suñu yofu bop la manam bo xolé élection ya daan am Sénégal. Mhm. yépp par ordre d'arrivée c'est par ordre de richesse ku ëpp ya jitu deug dëgg la bii nag ki nga xamantene dafa am mhm. yi bor. na Sénégal yi jiita <laughs> kon faluñu faluñu ko ndax xaalis faluñu ko ndax dafa distribuer quoi que ce soit sénégalais ño am s'en intime conviction. Mhm. gëm ne lii mu yor comme projet. mën na génne Sénégal ci euh, guuta sénégalais yi takku ba mu dëgër balaa vote bi danoo jël seen i dërëm ak seen ñaar def ci projet bi ànd ci ñii xeex ci ñu tëj leen ci prison ay euh, mois yu métti ñu dund ko ñii ñàkk ci seen bakkan ce régime là sénégalais dañ koo paye par le sang pour mu taxaw ban journaliste moo war a mën a jóge fële naan da ngay nappee ka chantage dafa mën a nekk c'est possible tout journaliste tout euh, impérialiste tout homme d'affaires du tara. le président Diomaye est là que par pour l'intérêt des Sénégalais Qu'est-ce Qu'est-ce parce que lépp nag bu que le Sénégal qu'est-ce kese la am ay. contre c'est sax ki ñu Bamba Kassé mi nga xam ne ne moom moo jiital kuréel gi ñu dippee Synpics ba fi président Macky Sall daan président ci réew du Sénégal c'est ci événement mars 2021. mille vingt et un yi. takk der yi dañoo jëloon grenade lacrymogène la di koy door ci kaw journaliste. kookee di Bamba Kassé ba li mel amee au lieu que mu génn daal di défendre journaliste boobee waaye daa génnoon di ŋàññ journaliste seen wàllu bopp ne akub journaliste bu yorul carte de presse luñ ko mënti def ci manifestation loolee dagan donc kookee dafa yàgg far ak régime kookee di président Macky